war a wax nag euh, li jar a wax nag mooy accident <laughs> man de xaw ma kum jaaxalut man mii de jaaxal na ma man maa ngi koy wax dem ci benn plateau rek mu na est-ce que du malédiction du nattu bu yàlla teg nit lenn nag loolu dama ko doon dugal noonu rek. Mhm. Euh, yàlla da mu ngi fu nekk. dëgg la. waa de am na ci loo xam ne mën na ko cee. xaw a génn ci dogalu yàlla dëgg la. jàngat génn dogalu yàlla. dëgg la jàngat mbir mi. te xam na accident dafa am lu koy waral. Mhm. man du ma am lu ma ciy daw ku mel ne man tamit du am lu mu ciy daw oto bu deful mouvement du def accident il faut qu'il y ait mouvement accident soog ñëw. dëgg la kon am na part de responsabilité bu rëy rëy rëy wax ma bu ndaw de bu rëy rëy rëy te ñun war nañoo corriger suñu bopp. ñun ñu conducteurs yi. Mhm. mu ñun section transport euh, euh, transport. Mhm. di conducteur di borom oto képp koo xam ne kii usager nga. Mhm. di nekk ci kaw tali bi war ngaa corriger sa bopp pour que lii fléau bii ñu def ci liñ man te bañ kaa tekki loxol ndogalu yàlla dëgg la loola nag la ko indi damay wax ne ñetti chauffeur ñoo nekk ci kaw tali bi ñetti chauffeur chauffeur bi nga xam ne xam na li ko code de la wax tam dawal tamit macha allah mën naa dawal te xam ne li code wax maanaam théorie macha allah pratique am macha allah ba pare mu koy jëfe di ko exercer kooku mu ngi ci taal tali bi am na koo xam ne kii xam na code de la route ba mu jeexal ko xam na conduite muy la pratique ba mu jeexal ko mais maa tey lay def le plus mauvais koo xam ne kii xamul ci code de la route tous xamul ci dawal tous kooku mënul def lenn lu négatif te ñoom ñett ñëpp kenn ko rek per bu xonk nga yore ñu ngi ci kaw tali bi dëgg la te bu accident amee rek ñu ne chauffeur bi effectivement. Mm-hmm. oto nee na oto bu gaaree def accident. waa dañ bañ la lay wax ci accident tamit ba léegi jeexut am na lu alam lu ko waral xam nga tax du gaaw jeex. Mm-hmm. chauffeur bi rek lañ joxoñ baaraam. permis à point ak même nee naa leen bu ñu doon paak na chauffeur accident te ci ñu dagg sa baat teg ko fële du tere accident di am. xam nga tax accident di am mm-hmm. dafa am lu mu war a àndal lu ñëpp war a xeex. kenn ko nag morso ba nga ci am jël ko jàmm soog a ñëw te loolu lañ négligé. kan mooy defar tali kay tali def li war a mel la war a mel Sénégal dafa romb fi nekk nii route croisement ndax 1960 dimensionnement 7 mètres boobu moo fi nekkoon ba léegi ñaata million oto ñoo fi nekk kon dañ kaa war a romb tekkiwul na nag bu bu loolu amee tamit accident war am déedéet dañuy ñëw ci wa joxoñ baaram li nga xam ne bu ñu ko defee accident mën na ci jeex kii joxe permis di fonctionnaire di yaakaaru Sénégal force mi ñaara fa nekk ñaari fonctionnaire dafa nekk. fonctionnaire bi nga xam ne salaire am dakaa doy sëg. da natt ba nga xam ne yow mii ci théorie muy code de nga mu acte admil la. mu nattale ci conduite ba nga xam ne xam ne wóor mën nga mu admil la soog laa jox permis soxlawu ci ñaari dërëm mu am beneen fonctionnaire bu nekk ci wetam lijjantiwul ndax mën nga ndax mënoo indi soixante-quinze mille francs ma jox la permis beneen ngay passé ma dàq la deuxième ma admil la bu la neexee sa deuxième doo ñëw te fonctionnaire la ci wetam am na kuy pratiquer normal am na koo xam ne kuy pratiquer normal ñaar ñooñu ñoom ko jox leen permis na dem leen ci tali bi mais bu fi accident nga dawal normal ki dawalul normal moo ko fekk si ñoom ñaar ñoom ñu ànd débat ñoom ñaar ñëpp am na problème kan moo ko jox euh, permis ba mm-hmm. am nag ci koo xam ne kii tege na ci yoon am na koo xam ne tegu ci yoon muy ñun ñii mm-hmm. nga ne bëgguma te fu ñu la fekk yaa ngi mandi waaw mandi nag tuxu am na ci dëgg la ni doom am na ci naan leneen am na ci mhm. mandi màndi rek la nga ne man damay mandi mhm. waaye nag du def accident mhm. loolu ay caaxaan la bala maa mën a dawal damay màndi ku ko wax ku nekk ku dee yaa ko rey ku dee ku nekk yaa ko rey li wérti wóor mooy contrat lañ am ñun ak ñii yëpp contrat lañ am ak li ñi yëpp Mhm. marchandise nga jël point A tank que ko point B violation de contrat nga nek client bi nga jël fi passager bi nga jël point A tank que ko point B mhm. trahison bu demou rek trahison ñëw na kon suñu mission mhm. bu ñëpp defee ree nañ défar bu ñëpp défur nañ défar mais li ëllëg ëpp ci cioli moy tank ñi que ngi jël benn cible la seule cible muy conducteur bi rek yam fa dama né am nañu un ministère des transports mais amuñu ministre du travail

indi ma nangam baa ma jël sama oto te waa ji gëmul yàlla xam na ne yow mii ni mu dafa am oto yàlla mën a laa jox suba oto mën naa indi accident beneen bi dañuy joxañ baaram ne leen lii te bokk na ci li mën a indi accident muy ay aire de repos réew yi nga dégg ñu ne amul accident damaa d'accord bu ñu fay copier nañ fa copier lépp lépp indi ko fi da ngay déparé fii léegi moo xam camion la moo xam transport de personne la nga jëm maatam amul fenn fooy taxaw ngay dem fii di dem ba Bakel ci camion fi na amul fenn fa taxaw dëkk bu mag boo mën dem maire fa bind na arrêté na bëgguma gis sama dëkk bi oto bu fa taxaw waa léegi pourquoi maire yi mënuñoo jàppale gouvernement bi jàppale population bi grande ville yëpp ñu aménagé ko ay parking même bu dee latérite la même bu dee payant la bu waa yi ñëwee foofu nga nag hee dugal fii mu dugal noppalu oto ba noppalu ñim yëpp noppalu nga xoolaat sa oto waaw foo taxaw ñu la kaay fay 6000 police na la kaay fay 6000 parce que arrêté la doo fi taxaw bis bi du fi taxaw camion bi du taxaw waaye léegi nga déparé Kaolack ba Bakel nag te loolu lépp boo ñu koy wax dañuy won aw yoon woo ne bu ñu ko combattre kenn ku ne jël sa motom fekkee dañu bàyyi loolu lépp kenn waru dee ñu naan yi ñëw di fa nëpp waaye léegi da nga bu fa taxaw da ngay dem bu ci digg àll ba nga taxaw fa ak ceeb jàmbur da ngay yëpp ay nit ñu la bëgg dugg ci dëkk bi da ngay dem ba génn di dëkk ba taxaw foofu ak doomi jàmbur yi dañu lay war a aménager ci biir mhm. moo ay am fu ñuy repos am fu ñuy gis seen bopp mhm. loolu ça ne coûte rien loolu du problème ministère problème mairie la mhm. te mairie bu ne mën nga ko même boo dee da ngay fayeeku nga fayeeku oto yi am jàmm loolu bokk na ci lii indi li motu accident mais tamit population bi da ngay gis état léeg-léeg mu góorgóor ba defar tali teg ay signalisation góor xuma ñëw jël lépp yóbbu ko fera jaayi ko fu ñëw dawee cinquante nga jël tableau cinquante boobu dem yóbbu ko fa raay ma ñëw daw fa cent accident am am naa ci pas de responsabilité bu feeraay jaay ko def ko yóbbu ko défense sama naa ci responsabilité mais kenn ko tudd yow mi yor sa jur war a gérer sa jur te xam ne jur gi da nga war a téye baax a baax a baax nga wàcc ko saa nu ko neex génne te saa bu amee ñu la sa wër ba la mais duñ tudd borom jur gi te yooyu yëpp bu ñu koy signalé. défendre duñ chauffeur bi dañoo bëgg kenn ko nekk morso ba nga càmm nga defar ko. sareet yi nu leen neex la ñuy dawee guddi. mu res nag ki nga xamante ji mooy yaakaaru Sénégal. démb mooy muy takk der bi ci kaw tali bi. que. moom mi war a taxaw nag gérer. waaw man d'accord mu ko naa homme de tenue homme de loi la d'accord. homme de loi ci kaw tali. moo xam policier nga moo xam gendarme nga moo xam douanier nga moo xam eaux nga taxaw ci kaw tali war a réguler war a xool li yoon. toog fa nga toog oto rombal nga nag fërr chauffeur ba droite wàcc ñëw fekk si la defoo sa liggéey un un mu rombal dem ñu ne accidenté nga déplacé dem constaté ci ko boo génnul xool ko danga naa ko doo dem ma ci profité gërëm euh, commandement euh, gendarmerie territoire bu bu bu Kaolack. gis naa ñu def liggéey boo xam ne bii bu ma seetlu Sénégal gépp gendarmerie yëpp di ko def muy anti brouillard Sénégal amul brouillard. oto bu particulier njaga njaay camion ci yam ante bur yàlla oto bu ko yoree dañ kaa a dindi sànni ca xaj bari na fu accident yi am ante bur yàlla ndax yow mi ko sànni yaa ngi gis nu la neexee mais ki nga jox gumba la ba saa bañ koy romb kooku accident dana fa yomb Sénégal amul brouillard luy doy anti brouillard particulier bi yore ko ñu ko ne deñ camion bi yore ko ne deñ auto transport ko te loolu lépp mu ngi fi ne ñu ne celle cellaaral te bu accident amee ñu ne si wër ba la dafa am lo xam ne chaîne la dégg suma xarit Mimi Touré wax ne chauffeurs si sont indisciplinés chauffeurs yi jël pour pour joxé pour ñu chauffeur ah way Mimi nga ah, ñu tap ah way liñ lay joxagne nga dimbali ci ñu mais mais ñi wax sax ni ah? chauffeur ministre bi rek euh, def na dama ne barki Dembo ñay la jëm ci uh-huh. ñi wax cette place yi nga ne place bañ ne renouvellement ku ci man dama benn sénégalais moom ñaar sénégalais amut gis nga bu ñu renouveler tata ñu jël njaga njaay bu màgget bi jox la ab tataaw ab bees jël car bu màgget bi jox la tataaw bees lan moo tax mënuñoo jël cette place bu dee bi tamit jox la jox la benn oto. góor a prime de casse la. dinañ ñëw ci mais bu ñu nee nag léegi euh, car bi rek la ñu changé. Uh-huh. njaga njaay bi la ñu changé. Uh-huh. mini car ba car bi. Uh-huh. suñu yoon nekku ci. oto boo xam ne moom makki kay dawal. makki kay contrôlé. waaw 50 ans. waaw gis nga accident accident ministre bii dëgg la waaw ay kat-kat yu bees tàq la te gis ngeen ni mu yàqoo bu doon ay sept places lu ñu def duñ tasaaroo dama ne ñii moom sept places yi mhm. xamuñu ñuy def oto yi ndax transport dañ kaa sànni ñi waroon def transport defutuñ ko ñi ci amul droit ñoo koy def nu ngu transport ci ñun muy war gay nekk jakartaak lépp loo xam ne lii ñun ci lañ doon jël ñu ñëw jël ko renforcer ko ba pare seetaan ñu amatuñu dara ah, lu ñuy war a yóbbu suñ kër des ci bi

waa léegi visite technique moo permet yam fonctionnaire bi nga xam ne bu oto bi baaxut doo ko jox visite technique kooku mooy xeex ak accident jëmma jooju mooy xeex ak accident moo xam góor la moo xam jigéen maa ngi ci profité di gërëm madame Guissé bii nekk Colobane hmm. ak bari ñu koy toroxal ak wax ju ñaaw ko nangu di ka ko wax moom ak ka nekk beneen jigéen bu nekk Saint-Louis hmm. maay toog samay morom di ka di leen wax ju ñaaw xam nga day def seen liggéey gis nga kuy def sa liggéey mu ñu la saagaa tamit baax na technique doo jàll gis nga sari yëpp ay jigéen lañ ko war a jox man sari si ma gis ñu jigéen yëpp hmm. macha allah ay jigéen lañ waroon jox xam nga la yow nga jox yore oto xam nga li xew ci visite technique yi oto day daw ndakaaru gii bu bëggee visite technique carte gi lay def ci enveloppe collé ah. yónnee mu dem ah. buy ñëw indi indaale visite technique ngay dawal te bu assurance ñu la sëwër ba la an kan moo visé loola gisul

taxaw na manque de patriotisme taxaw na parce que yooyu yëpp ñàkk bëgg réew mi la fonctionnaire bi toog ñu yónnee ko carte grise moom mu toogal réew mi mën a defar visite technique oto boobu te gisu ko beneen bi ci des mooy nit ñi ba nëgë xamaguñ seen droit ci boo déggee li góor a wax mooy alkaati taxaw arrêté la nga daw ba romb ko 500 mètres gaare yow wàcc oto bi ñëw fekk si ko te moom mu waroon a dox ñëw fekk si la kii toog ci oto bi xamul droit am mi ngi mel ni euh, problème mu li mu wax ci permis yi daanaka booy seet dafa mel ni dañu waroon wut magasin wekk ci permis yi ku ñëw ne bii laay jënd ñu jox la ko parce que ay junni nit am nañu permis te bën na ni xamuñu fu service des mille nekk mosu ñoo passé permis jaaruñu fenn en tant que nit ku jàng droit sénégalais yi dañu am problème ci xam seen droit. wala dañoo dese nekk ay patriote wala seen citoyenneté dañoo des ci côté boobu ba tax faay bi am ci réew mi balaa ñu dellu soit ci góor a man yaakaar naa ni góor bu waxee ba pare pratiquement teg ci dara dafay métti mm-hmm. maîtriser na ko euh, parce que li muy wax noonu ku maîtriser li muy wax noonu wax dëgg yàlla amul loo ci munti teggi dëgg la te xol lay waxee voilà mm-hmm. euh, tubaab da lay wax ni la diable est dans le détail somme de détail yooyu yëpp mm-hmm. mooy indi lii nga gis te problème nag bu fekkee ne yow da nga koy analyser mënoo ko analyser ci benn fànna bés boo ko analyser ci benn fànna rek ça veut ko que nga ci analyse ba tey mënuloo ñëw accident yi nga ne de façon chauffeur yi kese la chauffeur yi am nañ ci part de responsabilité comme ni mu waxee parce que comme ni mu la ko spécifié ñetti catégorie de chauffeur moom moo am ci tali comme ni mu la wax li mu la tegal noonu boo demoon magistrature également loolu lañ lay wax ñetti catégorie magistrat lay am moo am mhm. magistrat bu nga xamante ne jàng na mhm. xam na lu muy tëral mhm. def yoon mhm. magistrat bi nga xamante ne jàng na xam na lu muy def deful yoon magistrat bu nga xamante ne xamul la muy def ba pare bëgg dagal yoon ñett yooyu moom moo am dans tous les corps de également noonu mu la ko waxee ñett yooyu moom moo am donc boobu moom mooy responsabilité chauffeur bi mais responsable chauffeur chauffeur bi joxul boppam permis chauffeur bi joxul boppam oto ñaari contrôle am na permis ba ngay joxe ak oto ba visite technique bi nga xamante ne moom moo ko jox je pense que foofu noonu déjà mën nañ fa la problème yu bari responsabilité état moom moo am foofu nag avec tegal ñu nga xamante ne dañuy jaaral yoon su jaree nga fay leen ay salaire yu tax nga xamante ne kenn du leen jéem a ger nga fay leen salaire bu nga xamante ne kenn du leen ger ñuy jël permis jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo mérité ñu jox leen permis parce que natt nañ leen ci con ci code natt nañ leen ci conduire avant ñu leen di jox permis mhm. muy la première des choses mhm. oto ba nga xool également ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy contrôler mhm. ñu mat ñu koy contrôler nga fay leen la tax ñu war leen a fay pour que ñoom aussi ñuy def correctement seen liggéey la deuxième chose également tey jii képp ku nga day dawal mu nek transporteur mu nek particulier mhm. bo génnee à l'intérieur du pays ni nga xamante tali xat nañ mhm. man mi journaliste mhm. jogé na l'observateur ñu yónni ma mission ma dem jawobé ba may wagné ko sun auto dafa këpp hmm? bis Guana la won ma ngi won ca bir bis ba parce que tout simplement wéru koor la woon fajar bu ñuy ñëw bay dugg Fatick ben camion malien ci digg talibi la don daw bus bi était obligé daal di def coup de volant bam defé coup de volant talibi dafa kawé dafa braqué ba muy redressé oto bi jaxane parce que tout simplement talibi dafa xat parce que tout simplement que kële également mom lu muy gis amna chargement bu nga xam mom la koy def te bugul daanu ci all bi muy daw ci kaw ci kaw tib donc talibi yi dañoo xat muy muy muy la première des choses mhm. tey jii comme nu la ko waxé Europe mhm. deug la Europe mhm. accident di nga ko gis. Mhm. dañuy daw lu bari. parce que Europe pratiquement amatul tali yu nga xam ne dañuy am croisement. Mhm. Mhm. ñii ñuy def nii mu am benn bloc bu nga xamante moom moo leen di séparer ñeneen comme autoroute yi nu muy demee noonu. da ngay amoindrir accident yi. parce que choc frontal. pratiquement doo ko am. peut-être oto bi ngay gis oto peut-être pneu ba toj nga pneu ba toj na mu mu def kii wala ñoom ñoo wala chauffeur ba nelaw wala chauffeur wala chauffeur ba nelaw donc donc man pour man responsabilité yi dañu bari responsabilité d'abord par rapport à l'État du Sénégal mhm. parce que tali yi du chauffeur moy defar tali mhm. état mom mo war def ay infrastructure mhm. et je pense que loolu mom moy la première des responsabilités bala nga sanctionner nak nit ku nek dafa am ay devoir ak ay responsabilités mënoo imposer nit ñi ay responsabilités alors que yow mi war def ses devoirs defoko moy la première des choses je pense que y a une responsabilité qui incombe à l'État. état bala ngay ñew nak di caw nit na nga matal yow yi nga xamante ne moom mooy sa warugar su fekkee ne mataloo wool nit ñi ngeen toog concertation ngeen waxtaan quel quel lan la ñuy def ba mhm. solutionner solutionner les mhm. problèmes mhm. mais mënoo ñëw rek nga xëcc sa yar nga ne man damay caw alors que yow li nga xamante ne war nga koo matal matale woo mais Daouda boo xoolee balaa may ñëw ci góor rapidement hmm. est-ce que tamit euh, guerre hmm. ni mu mel ci affaire transport ak affaire otoog mhm. jox responsabilité xalé bo xamni liñ ci jublu moy mhm. da nga bëgg comme mom amul responsabilité mhm. amul jabar amul dara koko gëna mëna indi versement parce que moom nguuru yor naa bi rek la ci la toll nga bayyi koko ak auto bu yeb ay 50 personnes 80 personnes personnes euh, ñaareel bi ci des mooy police bi ne ci kaw mbedd mi alkati bi yoon di fay weer wu dee mu taxaw waro contrôler bu jaarul yoon nga police bu jàpp fukki oto. yóbbu leen ñu teg ko ci yoon. bu weer deewee nga am benn récompense wala nga am benn grade bu ñu la monteel. wala am lu ñu la mën a defal loo xam dana tax. boo taxawee ci télé bi doo soxla ger. parce que nag nëbbuwul nekkul lu nëbb ñun ñëpp. xëñ na ñu ngi ci kaw télé bi. mais am na ñoo xam xëñ na duñ ko def. ku mel ni man ñemewuma ko. Mm-hmm. musuma ko def. Mm-hmm. mën nga ma arrêté ma négocier. Mm-hmm. mais mosuma ko def sañu ma ko ñeme ma ko. Mm-hmm. sama sama sama sama fit dalul ci loolu. Mm-hmm. mais defe naa loolu nëbbuutul. loolu est-ce que du problème boo xam ne tamit mën nañ ci teg loxo. wax ni ci wàllu suñu euh, dëgëraay ci wàllu administration ak institution ak police yooyu tamit des na ba nga xam ne tey oto bu la romb mu wóor la ni oto bi ku ma dab ne ma accidenté na du ma ko weddi. parce que li mu yab jaaduwul. te léeg-léeg sax client yi wax ni. chauffeur bi waxal ak moom li muy dawal ëpp na. Mhm. soog bi mujj Ziguinchor. Mhm. bi ñu defee TFM la ko seetaan. Mhm. am na kon ñu interviewé dafa wax nii chauffeur bi wax nañ ko ne ko dawal ndànk. ñu ngi ko koy wax depuis bu génnee xaw ma fan ba tollu place sangam. bi muy débouché du du troisième position ci la ñàkk contrôle dem ci àll bi. taxawaay boobu balaa may ñëw ci góor est-ce que at maanaam loi yi waruñu gën a sévère. ci loi ba tax nit ñi gën a tegu ci yoon parce que daaw da mënuñu defar réew mi tant que ay loi teguwul ba pare nag ñu yemale ci jabaru ministre bi yemale ci doomu sëriñ bi yemale ci Malick mi amul palto amul place tey daw ci kaw tëli mais le problème mooy xam nga ni suñu réew mi dafa am jafe-jafe tey bu ñu jàppee sa oto nga daw ñëw dem ci sëriñ bi mu woote li nga def lu mu rëy rëy ñu jàllale suñu jappé sa auto nga wo ministre bi lu mu rëy rëy ñu jall te su hajj Malick ñëwé indi autom ñu jappé ko liñ la jappé te mënu mënuma yegg yow fi nga yegg man ma am problème est-ce que fofu nekkul problème bo xamni buñ ko laalon dana mën a jëriñ dara bala may ñëw ci goor wa lool yépp mu ngi ci parce que impunité ben problème la ci li nga xamanté mom moy créer accident yi parce que dañ la dañ la dañ la sérieux lu bari mhm. wax nañ la ay tali mhm. wax nañ la ay permis bi wax nañ la ay visite technique mhm. permis bi ak visite technique bi foofu ger moom moo fay dugg mhm. parce que ka nga xamante ne moom nekkul ci condition yi pour que ñu am visite technique bu ñëwee xaalis lay teg sur la table pour mun jàll mais loolu nëbbuwul na voilà ki nga xamante ne ki nga xamante ne également loolu moo tax ma ne sànq autorités ci boppam ñoom ñoo fa mun a teg ñu nga xamante ne mhm. je dirais pas ils sont incorruptibles parce que di nga leen jox lu nga xamante ne waaw mais xam nga daaw da le problème <laughs> mooy xëñ na dinaa ko laaj góorale mm. euh, problème bi mooy ñun ni ñuy geree dafa dul nekk baatu ger affaire u murit dañ naan la ngeen baal ma damay wax rek mm-hmm. da ngay de ku la ne nuyoo murit mm-hmm. wala ku la ne nangam xam nga murit buy nuyu sëriñam da koy jox dara mm-hmm. ñu jël terme boobu utiliser ko ne nuyoo murit wala nga njëgu guru wala yooyu mën nga ko jox nit te doo ko tuddee ger fekk ger la waaw mais contexte bi du doon benn parce que ki nga xamante ne dañu nangu permeem moom mu ñëw joxe dara pour que ñu delloo ko permeem kooku ger nga ko mën tuddee ki nga xamante ne dafa ñëw bëgg ut visite technique ñëw yëkkate xaalis jox la pour am visite technique alors qu'il n'est pas dans les conditions pour am visite technique kooku ger nga ko mën tuddee. responsabilité kan la. la responsabilité collective la responsabilité d'abord administration bi nga xam moom moo fa war a teg ay agents yu nga xamante ne yu normal leen leen fay li ñu leen war a fay ba kenn du leen jéem a ger. responsabilité individuelle la ci ki nga xamante ne également. gëm na réew mi gëm na boppam xam ni otoom waratu la mën a jàll visite technique mu gaare ko. parce que ne ay bakkan laa yor mu noonu la deuxième chose également. Mhm. je pense que tey même boo xoolee règle euh, finance publique nit mënul nekk ordinateur ba pare exécuter une dépense. Mhm. policier bi mënul ñëw attester la ba pare encaissé. Mhm. mënul nekk. Mhm. donc nañ def en sorte que. quel que soit luy mën di am. policier bi bu fekkee def nga infraction mu attester la fa nga koy fay ji nekk feneen mais loolu mom moy loi mais wa mom moy mom moy la mais policier bi day ñew attester le sur place mhm. xam nga nga yow fay ko fim ko mu jëlat attestation déchirer sur place am na sax ñoo xam dañ naan la yor ma attestation voilà ma indalé ma attestation voilà góor a euh, chauffeur yi mom euh, bëgg nañ drogué wu ba tax na xëñ na léeg-léeg dinañ leen reprocher loolu te loolu xalé yi euh, nekkul lu neubul parce que léeg-léeg nga seen chauffeur di def lo xamni da nga xamni li lii dëgg ëpp na mais nekk ci biir auto di dawal nit ñi top la naan la ndank ndank ndank nag ba ay bakkan dem lan mo waron nek sanction ci bobu normal normalement. moy 3e serveur bi la ki nga xamne mom yoonam ragalul dara xamul dara <laughs> ragalul dara te mu ngi ak permem koku mo ci bir circulation bi xam nga xam nga tay dama am benn sumu benn waay la sax waay deugul ci man. Hmm. dana ma yow yaangi fi nek ni man ko ci lan mu da ngay def ay débat di wax affaire catégorie te am na oto yoo xam ne ñu ngi fii ñu nga Louga mënuñoo ñëw Thiès am na oto yoo xam ne ñu ngi Dakar te loolu da lay yàqal ay membre fi nekk nii gars yi ci profito ma ne eh problème affiliation désaffiliation ci àdduna la nekk mooy problème politique syndicat yéen bu ma bi ngeen tàccu bu ma nee yéen ngeen war a wax loolu ne kenn ko def li nga wax dama ne oto nga kay dawal te oto bi baaxut naa wax ba oto bi baax nga am jàmm visite technique daal képp ku koy signé mm-hmm. di dóor cachet mm-hmm. te oto ñëwul otaale ñëwut tu es le assassin mais dëgg la yow képp kuy jóor cachet di signé di jël nit di ko jox permis te xamul fu première ak deuxième féete tu fais partie des assassins loolu am na beneen bi xam nga ñu bari jàpp oto yi da ngay gis oto bu la romb mhm. nam mel nga yaakaar borom ko mais d'accord ngeen ci réforme bi cette place yu ñu war a foofu laa jëm si euh, gis ne la képp koo gis mu yore cette place uh-huh. li ngeen bëgg tamit moo mënta ne joxe cette place boo xam ni jaratul huit cent mille bëgg ñu jox la oto cinq millions wala dix millions waaw mais xam nga xam nga déedéet dama ne loolu dañ ko ma est-ce que mën ko kon da nga nekk ci erreur xam nga euh, état du jox kenn ñaar amul ñaar dërëm yu rawatina jox chauffeur am ko mhm. dafay créer condition ce qui se passe lan la yow da am sa oto oto bi lu mu mënti chargé mais yow banque moo la koy jox yow yaay fay banque banque yi ñoom pare nañ pour financer mais garantie lañ amul parce que yow boo jënd joon oto mu tax nga daan def transport mm-hmm. tant que amul autorisation état ñun loolu la ñuy soxla ci état mu def ay garantie mm-hmm. concessionnaire yi ñooy fur ñooy produit euh, produit bi mm-hmm. ñun ñooy def choix ci produit bi banque mooy financé crédit lay doon kenn mayuñu mais yéen taxaw ngeen pour septembre boo xam ne boo ñëwee boo marché bala ngaa yeb di nga fa def semaine mhm. la nga yoroon nga lekk ko mhm. waaye kooku bu gisoon oto bu bees kuñ ko mën a jox oto bu bees du ko jël da koy jël mais est-ce yi ngeen di joxe góor muy dem ensemble ah, sànq am nga loo wax léegi est-ce que am nga am nga loolu wax ci affaire taxi loi gis nga Sénégal gii waaw yi këyit manqué wu fi fii réew moo ma dem ci Sénégal ba suñ convention collective bii mhm. may def di koy buddim réew richesse bi ci am amul ci beneen convention Sénégal bu dee rek la moom ak fii la mooy champion mais après nag foofu la yem ba la yem moo tax ma ne la da ngay gis bis bu la romb yàpp ci kaw ba jeng ngay tudd borom bis ba di tudd borom oto ba moom moo la gën a bañ loola waaye léegi da ngay indi sa bis mu ñëwee vingt cinq places nga ñëw ñu la assurance soixante places moo am bu ma daggee assurance soixante places ci ndigalu état du ma wut ay versaay def ci ba mat soixante yow nga yëg ci di saaga chauffeur bi la ko taxee def ay versaay te assurance bi catégorie suñu def ci assurance mi ngi nekk 60 ba pare yow na nga bëgg dugg ci oto bi bàyyi bëgg faa fekk 25 place mën naa nekk mënul nekk mais fekkoon ne catégorie bi 25 moo ci nekkoon assurance bi 25 moo ci nekkoon waaye du def 60 te loolu lépp bi am ci réew mi te ni du ci wax tous bu ci des amul koo gis mu yore bus baa nga yore camion muy daggadi wat amuloo ko njariñ tegal na solution bu tax mu am njariñ gis nga dañ ne nañ encadré transport transport de marchandise dafa am barème de euh, dafa dañu dañoo ne nañu utal barème de de de de kilomètre euh, nu mu tudd euh, boo xam ne bi ton kilométrique bu ko regee loolu ñuy wax naa poids yi dafa bare dañuy yàq tali bi yooyu yëpp indil nañ leen ñun ñu acteurs yi indil leen ay solution mais état boo xam ne su ma ci maanaam dañ ko sama yónneeku ci lay wax waaw sama yónneeku ci yow nga waroon a yeb vingt tonnes mu ne sama yónneeku ci nga yeb vingt cinq tonnes ñu ne da nga ëppal cinq tonnes dañu naw ñun oto yi bu ñu sañoon duñ ci yeb lenn benn gramme bu ëpp mais nañ ko encadré. système courtage bi am ci transport dafa war a deñ fu ñu la waroon a fayee 2 millions. système courtage dugg. kaay mu kaayat kaay mu kaayat kaay mu kaayat ba buy ñëw ci yow. 2 millions yooyu 1 million 500 ba 1 million 300 ngay dese. léegi nag nooy def léegi pour mën cee dab tax na boo demee Mali baa nga dem ci Bamako baa nga dem ci euh, kaay euh, fii kon Ziguinchor baa nga dem ci Matam. Mhm. doo dese dara nga ne kon naa yokk quoi. d'accord loolu moo indi mhm. bu ñu joxoon barème normal bi. Mhm. kenn ku nekk da ngay wàññi poids mais doo ko yokk. waa góor a transport de personne bi. Mhm. ma ñëw. Mhm. gis nga ki yore bisam ba muy jeng. Mhm. sañ ko gis nga koo gis mu yow bi bisam ba dem ba jaww bee woo nga jóge woon. gis nga bu defee ay ferem. ba yëpp jeex la mu joxe tali baak la mu jox coxeur baak la mu jox ma sàmba ak ma dem ba. du fa dese du dese cent cinquante mille. yo xamni bu la tey da nga am kon kooku bëgg ko gis nga mhm. état nee leen ba tay du joxe ñaari deureum mhm. état amu droit di jox ci transport ñaar deureum bay ñi ci dess soxla wu ñaar deureum état mhm. xam na li war def ba auto yi ñew fi xam na ko te deureum du ci dugg mais goor est-ce que lolu ta du ko def loi yi jall mais boobu nga da ngaa bëgg charger euh, changer ben benn catégorie bay ba ci dess borom ce plan bi xamul num koy def te bu dee nga ne ko soo bi da maget du tax du maget da koy sànni ma nga gis ku yere auto bam la nga sanni ko dañu am boobu richesse dañuy tek ay condition yoo xam ne xam ne yor oto ba mu màggeen nga sànni kenn wax waaye yor oto tamit mu wóor na nii dugal ci ay ni risque la nga ne du ma ko yor ndax damay joxe dépense loolu mais yéen taxawaay bi ngeen waroon am mënu leen ko leen ko am mooy yéen tasaaroo ngeen ba léegi bokkul loolu mais man maa ngi ñëw ci ah au moins production bi exploitation bi la lañ koy def kooku du problème observé dama ne Sénégal yi dafa mérité confort et la sécurité loolu daan ak ay jamono ci yaay jame ci bag ba mhm. léegi alhamdulilah la ñuy war a xeexee nag mhm. gis nga ci état nga bokk ci laa bokk keneen bi bokk mhm. ñun ñoo fal ñi fi nekk waaw la moo waxoon ñu fal leen pour ñu régler suñu problème waaw waaw kon titre de transport wu réclamer euh, ay problème pour ñu ko kay régler mais bu ma déglu rek di ko laaj mu réglé ma sama problème mhm. yow mu ci bokkul màndu ci baa nga jàppale baa nga màndu ci mais da ngay dégg ñu naan si liñ bëgg mënul nekk liñ bëgg mënul nekk te yow la fa nga nekk yaa ngi fay réglé yaa ngi fay kaas loolu nag mënul nekk seen biir ngeen koy wax yéen parce que léeg ngeen joxe euh, décret ne tey benn oto taxi du daw ñu xëy am taxi yu daw waaw loolu moom parce que li mooy ànd bi waroon a am tamit seen biir góor foofu ma ne gaw ma ne. ànd amul gaaw jege xam nga xam nga nit da ngay gëm yàlla rek. góor a ànd amul de. ànd kay jegewul am. waaw loolu tamit est-ce que waaw du tere nag loolu état wuru ca basé wu tamit mission bi ngeen di ñàkk ànd bi warul tere gouvernement. def li ko war bokkuma ci yow bokku ci mais ci état nga bokk ci laa bokk. gis nga ku bëgg réew mi danga naa wax leen ma samay soxla seeni soxla yéen wax leen ma doo wax ne mënu ma ko de wax leen ma samay soxla waaw man mi la wax sama soxla ba nga dem waaw ma woteel la est-ce que amu droit nag suba na la jox ma rek sama problème

permis direction des transports nee na may leen ma cinq minutes rek ngeen baal direction des transports nee na cinq rek ma tëj cinq minutes rek ma tëj direction des transports nee na le 3 waaw permis ñi amoon permis Dakar seen permis bu xonk dootul valable mhm. ñi amoon permis Dakar permis bu xonk bi waaw mhm. man anduma ci ba léegi ba loolu mhm. xam nga tax man anduma ci ñaari sénégalais bu benn moo am xooli centre technique bi ñu ne moom mooy bi meilleur Sénégal li mu yaatu yëpp ñu la benn Dakar rek teg ko waaye léegi nga ñëw Dakar am centre visite technique bu normal yow waaye léegi ka nekk Founguel mi nag ñu ne ko demeeteel yow est-ce que ñaari sénégalais moom dama ne man li ma d'accord mhm. nañ ko yóbbu ba 2021 nga xam ne léegi Sénégal gépp ay am bokk ci système bi ñëpp koy uti ci passé permis suba bu sa permis génn génn numérisé mhm. mhm. ñëpp am ko ñu ne tel date nag 31 décembre 2021 permis boo xam nga bëggatuñu ko gis Sénégal waaye ñu ne léegi permis boo xam nga bëggatuñu ko gis ci ku am permis Dakar neexee

man mi nga xam ne Serigne Serigne mi laa amee permis mhm. dañ ne la trois bu ma ko changé wut. ok. Mhm. foofu la ñuy wax. Mhm. mais mi am permis Saint-Louis. am nga droit dugg biir Ndakaaru. et que sa permis jeexagut. loolu la ñu bari ci naanu ne bi ki des. permis réglé wul accident maanaam. yeesal permis bi réglul accident mhm. na nga moom la war wax mais permis kese euh, changer plaque yi ko comme européen lu France nga am rek ñu nga fa xool suñu plaque yu bële yu rafet yi fi amoon nga xam ne moo ne muy décoration bu rafet tey ñu ni plaque boo xam ne bii mënu ko xàmmee oto fanaa bi loolu lépp politique français kese la mais plaque bële bi lu ci nekk plaque bële daa indi accident plaque blanche la daa indi accident yooyu yëpp borom lekku xaalis kese la te ku ko wax dee Euh, Daouda est-ce que comportement yi tamit euh, jotul nag taxaw léeg-léeg sax nga ñëw ci feu rouge sa oto xaw a yéex a tàkk rek feu bi verte ñi ne sa ginnaaw dinañ la dinañ la klaxon bu mujj yow boo àndul sa sogo sax mën nga def jéyee mm. est-ce que tamit comportement yi waruñu gën a jàngal nit ñi nekkee ci kaw tali pour nga tëj ci loolu waaw man je pense que je pense que foofu foofu moom am nañ problème comportement et que nit ñi dañu yàkkamti trop dangay gis nga nekk ci fiil kenn yaakaar ne moo la gën a yàkkamti mu contourné la pour ñëw sa kanam loolu waaw c'est le Sénégalais qui est comme sa mhm. pour ñoom ñoom rek lañ war a servir man bu ma nekkee ci kanam man lañu war a servir ñeneen ñi sama yoon nekk ci affaire égoïsme la mhm. loolu je pense problème comportement la mhm. mais beneen bu nga xamante maa ngi ko doon waxaat également ci li mu wax ne ci affaire permis yu ñuy def c'est illégal déet waay maa ko wax <laughs> c'est illégal uh-huh. La constitution du Sénégal mënul def que ni sénégalais bi, Dakar bi ni Louga bi nga tous les sénégalais sont égaux devant la loi ñëpp dang être leen wara au même pied d'égalité c'est la première des choses la deuxième des choses le code est supérieur au règlement mhm. code de la route mënul le permettre lu nga xamantene un ministre moom moy arrêté pour changer mhm. c'est illégal mhm donc loolu noonu ñu nga xamantene bëgg nañ ko def tegul fenn mhm. té buñ ko défé également bo ñëwon nga ñëw attaqué ko devant la justice également da ngay am gain de cause tegul ko fenn koy xeex même bu ko xewul logique bi mu wax jël jël micro bi même bu uh-huh. problème loi mhm. problème logique la xamit nga tax problème logique la mhm. gouvernement bu Sénégal par le biais du ministère des transports mo na yow mi se permis warna dem valable ba 2021 mo la ko wax mom en tant que état uh-huh. est-ce que nit warna ka kaakaar ci diggante bi déedéet

waaw courtage bi bëri na fi fi mu toll nii de. réew mi loo fi wax ñu ne ki day sànni xeer dama ne ba pare ñun ñëpp ne koo taxaw ñu wax naa accident yi suba di dañu naan accident yi dañ la war a rey gis nga bu ñu doon rendi par kenn bu tere accident di am puisque li war a dindi accident moom lañ jéemu tous. Euh, euh, Sofia lan yow kenn ñàkkul mas nga am benn bis problème wala sa mbokk wala kenn wala nga dégg ni diw ci accident la dee wala dara lan nga wax ci transport. <laughs> bon transport li ma ciy wax nag li nga wax léegi dafa am solo danga fi indi patriotisme ak citoyenneté waaw waaw mais dama nii loolu boo amee tamit nit ki lépp li ngay def danga koy def par amour loo amul amour boo ko defee. non uh-huh. loo amul amour. Uh-huh. boo ko defooyee uh-huh. du du baax. ndax nit ki li ngay def day fekk nga bëgg ko sa biir xol nga def ko mais léegi nit ñi nañu am xaalis rek mais li ñuy liggéey sax bëgguñu ko. dëgg nañu am xaalis rek. kon patriotisme boobu ak citoyenneté boobu mhm. Mhm. dafay tegee ne waaw li may li may ñaax sénégalais rek mooy nañu yaraat suñu bopp mhm. waaye yar suñu bopp nag day fekk ñi ñuy jiital est-ce que yar nañ seen bopp ñi nga xam ne ñoo ñu jiite est-ce que yar nañ seen bopp ndax suñu kilifa yi bu ñu yaroon seen bopp xëy na ñun sénégalais yi ku ci nekk rek di nga mën a defaruwaat waaye yàlla nañu yàlla amiin Sophia looy tàggoo li may tàggoo mooy damay remercier femme xalifiste yëpp mhm. ak xalifiste yu góor yeeg yu jigéen ñëpp mhm. Mhm. di remercier nag sama présidente bi nga xam ne moom laa fi teewaloon ndax nee naa sànq bi may door wax moom bu fi toogoon wax ji dana gën a jub waaye ah ñun dañ ñoo yónnee dañ ñoo yónnee te dañuy nafar défendre nga te dañuy te dañuy nafar di ñaanal ñëpp di leen naan na ñëpp takkuwaat ndax suñu leader nee nañu takku mhm. góorgóorlu mhm. ñefe mhm. incha allah Khalifa Sall il sera le président de la République en 1924 merci beaucoup eh, di excusez-moi en 2024 ah. incha allah di wax nag plateau bi bëri na ay xalifis lool parce que bi ma leen di inviter kenn laa woo mais ñoom ñëpp ñi ngi fi beneen bi ci des ma wax ni woowoon nañu Euh, chef de cabinet bu ministre Ndeye Tické Ndiaye joxe woon na accord ba mujj gi ci la teewul ndax xëñ na ay contraintes li mu wax sax mooy dafa jotagul ministre moo tax teewul waaye xamoon na ni yéen a ngi fi xaw ma nag. ñoom du yomb. daaw da looy tëjee balaa góor a di tëj jotaay bi. man wax dëgg yàlla maa ngi maa ngi kontaan ci. lay gërëm bu baax nag yow ci sa. macha allah rabbuna mm. taxawaay. Mm. plateau bi nga bi nga moo ubbi mu ubbi diine ak xew-xew. Mm. mais bi nga fi jógee macha allah jot nañu lu bëree bëri. Euh, tooñ naa sax waa jàkkaarloo nee na da ngaa fii rek jàkkaarloo këf la <laughs> mais bëgg nañ kontaan nañ bu baax a baax lan ngay tàggatoo. non maa ngi lay gërëm e, e, si émission bi. di gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi. Euh, wax dëgg yàlla wax nañ fi ay wax yu am solo. wax yu am solo yu nga xamante ne mënul nekk lu dul jëriñ ci askan bi maa ngi leen di remercier di leen gërëm. góor la ngay tëjee. tàggatoo ko gërëm permi bu waax <laughs> gërëm catéchiste waa tiir attention nit ñi bàyyi nañu bàyyi di wax si wër si yëpp. ndax boo xoolee ci dawal camion ak ki dawal oto de passager. Mhm. ci par jour dina mat juróom juróom juróom junni yoo xam ne yi ñu ngi rulle te peut-être benn accident nga ci dégg mhm. kon

ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm bu baax Daouda Mine bu IGFM gërëm bu baax soxna Safiatou Massali bu Khalifa Sall PS Khalifis en même temps gërëm bu baax ñi nekkoon ci réseau bi Amadou Boubacar Dominique ak kan ak kan waaw ak Gagne Papi ak Gagne Siri ak ñëpp rek ñi nekk foofa ah. gërëm bu baax sama caméraman yi ma jàkkaar lool Yahya ak Boubacar ak Abdou Khader di gërëm ñëpp di gërëm téléspectateurs yi yéen a ngi àndandoo ak ñun 15h30 ba léegi diine ak xew-xew ajjuma bi di ñëw ñu dalal fi ñeneen ci beneen sujet incha allahu rabbuna wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu